ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay surtout suñuy mbokk journalistes yi di leen xamal ne lii de dañuy jeu concours la boo xam ne LONASE moo ko lancé muy LONASE point bet LONASE dafa am ay jumtukaay yu bees muy plateforme boo xam ne da ko créé pour que ñi yor téléphone ñi nekk ci internet bi mën a jouer mu am nag ay parieurs yoo xam ne dañoo gëm plateforme bi ba macha allah ñu am ci ay résultats yoo xam ne ah ñu am ci yoo xam ne am nañ ci satisfaction bu ko defee nag euh, directeur général bëgg a ay parieurs ñi nga xam ne gëm nañu plateforme bi looloo waral concours bi mu amoon nag fukki ngajaan gagnant yoo xam ne ñoom lañ ci prévoiroon ñeenti dem nañu ci phase de poule yi ñett yi waroon a dem tey nga xam ne bu ñu tolloo quart de finale ñett yi dem ñett yooyu lañ doon récompensé di leen jox seen i billet d'avion ak seen pécule bu ko defee nag bu ko defee nag ñu leen di yëgal ne jeu bi jeexagul parce que am na ñett yu des ñoo xam ne war nañoo dem ci finale Euh, kon le 5 février daa amaat beneen tirage ñu génnee ci ñetti gaña pour jouer nag yomb na luy tàmbalee ci 1000 francs ba jëm kaw ku ko def rek ku ko miser rek da ngay bokk ci ñi nga xam ne ñooy bokk ci tirage ba boo ci gañee ñu yóbbu la Côte d'Ivoire nga dem seetaan yi feetu football bi waaw ñu am ci ñu ciy profité rek di xamal ne directeur général Abdourahmane Balde mu ngi rafetlu taxawaayu parieurs yi di am mbégte ci ñoom di kontaan ci ñoom ci ni ñu amee ngëm-ngëm ci Lonase point bet waaw di leen xamal ne daal ñun parieurs yi lañ fi nekkal ku ci dem Côte d'Ivoire dañ la toppatoo transporter la booy wàcc ne cépp ci avion ba rek ñoo lay yóbbu hôtel ba jox la sa néeg ci hôtel ba héberger la booy seetaani match moo am ay car yoo xam ne dana la jëlee foofu ci hôtel ba yóbbu la ba match ba ba ci terrain de football ba aller retour bu fekkee na nag dangay ngay xewlu ni sekkeen yi ak njaween yi jox na la trois cent mille pour nga seet daal fooy mën a xewlu mu nekk nag ay conditions yoo xam ne ñoo ko jagleel suñuy parieurs am mbégte si ñoom di leen sargal ci occasion bi